Babacar mbay Ngaraf maa ngi lay nuyu. waaye maa ngi lay fay Adja Ndeye Comba. nga nekk coordonnateur euh, bu plateforme Nay Leer est-ce que mën nga ñu wax lan moo tax a jóg seen plateforme bi exactement. la plateforme Nay Leer mi ngi sosoo ci bi nga xamee ni ku ñuy wax DG Cheikh Dieng nekk ONAS dafa yëkkati ay tuuma yu rëy te ko ci ndoddu ministre am bi ñuy wax Cheikh Tidiane Dièye mu nekk coow loo xam dafa jóge ci ñaar ñoo xam ne xamuñu lañ ci caaxaan. bu doon dafa nekk ab koo xam ne yàgg nañ koo xam ci ay musiba wala ñaan laa kii de liñ ko dëgg la waaye ñoom ñaar jëpp dañu a xam ci ak jub rawatina ñu nekk ay kilifa ku ci nekk ci ñoom kii jiite ab parti politique kii jiite ab ab ab ab euh, mouvement kon bu ñu demee nag kii jël ay tuuma yu noonu te ci kaw keneen ki ñu jàpp ni keneen dafa war ñëw leeral ñu waaye mu préféré bañ a noppi. ba pare di ay ñoo xam bi ñoom la ñu tuumal dafay mel ni loolu ñàkk worma la askan bi nga xam ni ñoom ñoo takkan ndombay tànk yow ko takkan ndombay tànk ndax ministre bi président moo ko fal te président askan bee ko fal ñu jàpp ni dafa jot ci moom Cheikh Tidiane Dièye wala ñi ko fal te am ak ñoom contrat moral ah. taxaw leeral askan bi lan moo xew ci kaw loolu ñu lancé benn pétition doon sàkku fukki junni signature waaye dañ jàppoon ne dinañ ko mën a am ci lu mat fukki fan jàpp fukki fan a juróom matul ñaari fan benn fan rek la mat Sénégal yi defal ñu fukki junni signature ak lu ca teg yokkaat si yeneen ñu amaat ñaar fukki junni signature ak la ca topp loolu lañ ca jàngat nag mooy engagement sénégalais yi maanaam seen taxaw temm ci ci sàmm seen am am am mu bari ak mu néew def li nga xam ni moom mooy aar. sunu am-am rawatina nag sunu meññeef fi ñu yàlla may xam nga suñu mën daf dimbali may ñu lu ñuy wax pétrole ak gaz ak yeneen ressources hmm. yooyu lu ñu am am am am doole mënut a amal réew mi njëriñ su fekkee lalawul ci bon gouvernance moo tax ñu ñu taxoon teem rek ci mbir yi ah, leer naa ñu su na ñu donc dana tax ba ëllëg loolu ñuy wax jub jubal jubanti bañ nekk aw woy waaye mu nekk loo xam ni dëgg la ak jeexital lay doon ci suñu alal ak kuñ ko mën a dañ ko sàmmee noonu. Hmm. Euh, euh, kon euh, tey jii est-ce que yéen Babacar Mbaye Ngaraf da ngeen di laaj euh, démission wu docteur Cheikh Tidiane Dièye waaw wala déet pour mbir yi leer aussi. waaw mbir bi mu amee ñu dañu waxoon ni ministre Cheikh Tidiane Dièye bu fekkee ne li koy tumaal dara du ci dëgg war naa tekk ndombay tànkam pour d'abord mettre à l'aise le président et son premier bu mu ca yem mu yóbbul boppam mbir yu yoon ngir sang deram ni ko le ministre Yankhoba Diémé xam nga Yankhoba Diémé Yankhoba Diémé defee kooku benn nit rek moo ko tumaal waaye yebalul kenn de moom moo génn tontul boppam yemu ci mu yóbbu mbiri ci yoon te jàpp naa ni ah, Cheikh Tidiane Dièye ëppul ëppul tey ministre Yankhoba Diémé jàpp naa ni aussi ëpp ko doole ba tax moom mu war a mën a di mépriser Sénégalais yi ñu ne kon defu ko ñun nañu fexe yóbbu ko fa xam mooy penc ndaw réew mi nga xam ñoo leen jël sant leen mission waaye également jox leen doole ci ñu indi ko assemblée nationale à travers une commission d'enquête parlementaire pour seet lan moo am ci mbir mi bañ ko defee yàlla def ñu dégg ni ministre euh, Ousmane Diagne wax ni am na sax justice moom nguur gi santaane na pour ñu ubbi ay ay ay l'enquête ci mbir mu mel noonu ñu ne waa Cheikh ministre de wóolu nañu ko lool moom Ousmane Diagne très honnêtement ndax démbam dara na suñu xel ndax ak nit mën a jàpp la muy tënk ci Ousmane Diagne mooy lan nit la koo xam ne gën na ay principe ni koo xam ne aussi gën na éthique gën na déontologie te jàpp nañ ni personnalité ay nguur du ko yàqal waaye dafa am lu fi jaar loo xam ne dafa tee suñu xel bu ñu fàttalikoo bi bi ñuy waajal élection yi dañoo gis ay tuuma yu rëy jëm si wàllu ger ay magistrat yoo xam ne ay député PDS ñoo ko yëkkati teg ko ci gal teg ko ci ndodd ay ay membre du conseil constitutionnel ñu taxawal ab commission d'enquête parlementaire mu xëy dee ginnaaw bi nga xamee ni am nañu benn euh, kenn ci ñi taxawaloon ku porter plainte waaye tey ji amul benn sénégalais bu la mën a wax dossier ba fan la mujjee loolu moo tax ñu ne nañu continuer suñu taxawaay ba mbir mi leer nañ ñu jàpp ne également le ministre bi nga xam mooy tumaal muy Cheikh Tidiane Dièye ak tekk ndomba tànkam doon na jox doon na jox firnde ak xel mu dal askan bi que ni nguur gi kat taxaw nañu pour yombal ci suuf liggéeyam en toute impartialité ak en toute Euh, neutralité mais aussi surtout entre ngi nag toog ko ne di xaar incha ma laaj la aussi si euh, suppression HCCT ak conseil économique social et projet de loi bi dem assemblée euh, ñu rejeté ko en tout cas fi ñu toll nii président de la république li mu bëgg mooy dindi ñaari institution yooyu le yéen seen plateforme bi naka la gisee mbir mi waaw loolu de gisuñu leen lu dul rek am nañ ci droit parce que aussi xam nga Sénégal yi ñoom ñoo choisir li ngeen defar ay beaucoup d'offres programmatiques ñoom ñu ne ñun bii lañ tànn bii ñu ñoom Bassirou Diomaye Faye présenté te boobu daf cee bokkoon ñu dindi au conseil d'équité territoriale ak conseil social environnemental kon fekk ñoom tànn nañ loolu dañu war a dañuy dañuy nangu aussi eh, la mu àndal bañ a def la la la defoon damay jaay mbaam waaye noppi duñ jëm. amuñu problème ci loolu waaye tamit nangul nañu taxawaayu député yi ndax ñaari mbir xam nga kaay gunge ma ak may lañ jëm def naa saxaar bi gën bëgg sax yaakaar naa kumba bi ñu ne kaay gunge ma nga ànd ak moom dem danaa kay damay dem place sangam mbir sangam laa fay wuti kaay gunge ma donc li jaadu woon mooy premier ministre daa di ñëw wax réew mi fii laa bëgg jëm daan député yi kaa leen gunge ma na ci loolu kaay ko ñu mën a gunge mais si loolu loolu mooy lan damay ñëw dem sama DPG wan ni fii laa bëgg a jëm lii laa fay wuti lii laa koy wuti kaa leen gunge ma waaye mais defaloo ko ñu ne kaa leen gunge ma gaa yi bañ ça c'est de de aussi nga dégg ci argumentaire député yi loo xam jarul xeet dañu ne dans la yi da ngeen ni da ngeen bëgg a sakkanal yi yaxanal xaalisu réew mi waa kaa la ñu proposé loo xam ne moo gën a ëpp yaxanal lële 15 milliards la am na beneen bu wax caisse noire boo xam ne sax yéen newoon ngeen dafa xaraam te bëgguñu ngeen lekk lu xaraam kaa leen ngeen boole ko ci ñu fatal leen ko waaw léegi moom soo nekkat yow xale yu kër gi. Mm. waa léegi kat damaa bëgg léegi damay wàññi léegi ndekk añ reer damay wàññi benn bi ndax dëkk bi dëkk xaalis ndax kër gi amul xaalis banque fan yi xale bi waa papa li nga wax de dëgg la ko yokk ci aussi yow boisson yi ngay naan ak fruits ndax xaalis a gën a nga bañ ko yoo xam ne tax laa jóg deuxièmement aussi ñi ngi naqar ba franchement parler le fait que président donte am na ko droit daal di xëy limogé président au conseil ak présidente ak présidente euh, conseil constitutionnel environnemental dafay mel ni kon yaakaar naa tax leen woon a jóg waaye guerre politique moo tax a jóg dana dañoo sonn ci garsa garsa gi mm. rawtee nag garsa garsa institutionnel moo tax yuy ñaan président Bassirou Diomaye Faye di ñaan président Sonko nga ñoom ñoo ñu xam ne boo faloo xaar ci mooy ay résultats ay bilan la xaar ci waaye non pas ay garsa garsa on en a li ñu dund ci at yi weesu dafa metti projet bi gars ko jëndal lu seer li ñuy xaar mooy bilan li xaar résultat d'autant plus ba. yaa ngi dégg jamono ji yëpp ay scandale yi am ci réew mi yaa ngi dégg coowal Orange. Hmm. yaa ngi dégg coow la am Azera Kanarek yaa ngi dégg suñu xale yi dee ci géej yaa ngi dégg njàng mi nga xam menacé wu na yaa ngi dégg ay ay ay ay xam nga ñu bëgg a jëlee bitim réew. delloo si leen Sénégal. Mm-hmm. yooyu yëpp nekk yaa ngi dégg coowal Cheikh Bara Ndiaye boobu moo du ma sax Cheikh Cheikh yaa ngi dégg coow bu yëpp indi yëpp mais nit ñi tamit sax concentré wu ci ndax ay mbiru ma jëlee mooy lan man damaa jàpp ne ku ku ku premier sama waroon yàkkante sax ni kaay ma leen sama DPG ndax ñaari mbir bi ci njëkk premier ministre dafa toog ñu ñëpp dégg ñëpp mu ne bu gaa yi deful seen seen règlement intérieur ba le quinze le quinze juillet. da dem ci jury populaire def fa def déclaration bi kon man damay jàpp ne moom pare woon na balaa le 15 juillet ñu déggaat ni kat président de la République bi muy saisir euh, conseil constitutionnel dafa leen ni donte am ngeen weer sax pour tontu ma xanaa ba ngeen gaaw tontu ma juróom-benni fan ndax damaa yàkkamte ayoo koñ boo yàkkamtee ba tax le conseil constitutionnel bi xam ni amoon na weer waaye moom tamit mu taxaw ba tontu la ci ci ci juróom-benni fan. sa premier ministre ma war a yàkkati moom it dem wuy ji def DPG am kon jar nan ay ay ay loi nee na huit jours rek na deux jours man de damaa jàpp ne boo yàkkantee yow ñu yoon yónni yàkkanti te nag Sénégal dañoo yónni nguur gi yàkkanti kon nguur gi amul daa def benn pendeefal man damaa jàpp ne sax premier ministre ma war a yàkkanti moom les gars yi ba ñu def ko suba suba wala ginnaaw ndax su dee pare naa kañ xaw ma problème mu man far na woon naa ba la kii hmm. ba le 15 juillet. ba ne bi bu ngeen deful li ngeen def ba le 15 juillet naa dem ci ab jury populaire dafa sama DPG nga pare woon na kon du ñëw fi ñu pare woon naa kañ ñu noo ay question délai huit jours ak cinq jours du ma dugg ci boobu gaam ci tënk daal Sénégal dañoo yónni nguur gi yàkkamti leen lool kon na nguur gi comprendre yooyu enjeu taxaw ci liggéey te bàyyi dàggasante bi. Mhm. Euh, benn ponk rek ci euh, Benno Bokk Yaakaar coalition bi nga xam ni Macky daf ko tas bëgg a élargir xoolaat gën ko yeesal ci wàllum politique est-ce que tey ji bu la si président Sall woowoon est-ce que di ngeen ko wuy ji parce que ay libéraux ngeen de souche. non man ñun nekk man maa ngi man maa maa ngi société civile bi. waaw ànd ak ne leer ñu xëy société civile bi te bien avant sax ñu ngi woon ci société civile bi te maintenant lépp loo xam ne suñ ko doxee wala ñu wax ko. Mhm. réew mi tegu ci ñoŋ. ah sàmm alalam ba nit ñi mën cee jariñoo ñu ngi ci la xam question boobu nag politiciens ñoo ci gën a mën a tontu ndax man ba bàyyi naa boobu boobu terrain. Mhm. yàgg na ne ci terrain wu société civile bi société bi. voilà kon ñu ngi koy remercier bu baax a baax ki nga xamante ni moom mooy Babacar Mbaye Ngaraf nekk coordonnateur de la plateforme Nay Leer. jërëjëf léegi man ma leen di nuyu.